ذلك جمع جميع صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم ندا ببسم الله في مقام تاكو توك ماس بن جبل بام كو يبل نيوي يمن ببسم الله في مقال لاي نتلي دين كوب رسول بام تاكو توك ماس بن جبل بام كو يبل نيوي يمن دين كم باك فاتو رسول diisam nga tey laa misaal yëg maas ga ciy misaal te boo maasa nga yaman mahmuudu sow moom kànka ya dib sa ca bokki bayti ya mooy taarixal saaba ya dénku maas moon yaman fas ci yéene am ngërëm te dolli koo ci kam te am ci yërmande ki gëm borom aras roy maas moon salaatu xudwati la teew tànnee fi saaba yépp teew nit a gine teew mbër ma giiw naa soxla ku dem yaman yaa ma seral muhaajira wa ahlu lansaari tura jibril moon xaaru hira ne yàlla neen yebleel yaman moo tax ma xëy tey jii yaa ma seral muhaajiriin lansaari kum ci man di doon tey soxla ku dem yaman faaruuxa jëkk buur di wër te naa ko yaa xayrul basar am naa fa xaala yaa homar jeccul du yow di dem yaman mu toog mu baa mu woo keneen yaa ma sëral lan saari ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman usmaana jóg ibnu afaan mi daw ñu jot ci alquraan fa xaala yaa ibnu afaan iglih walastu bil yaman mu toog mu baa mu woo keneen yaa masar muhaajiriin lan saarikum ki man di doon te soxla naa ku dem yaman ababakar ma dib goroom moo jóg taxaw njool ma sangiim ngir ker sa la muy goroom mbay xam na moom du dem yaman ababakar moo jëkk a gëm jébbal ko doomam tey gërëm te jox ko mboolem halalam topp ko di nga tu ko won fekkoon na mbay moo gën a woom pasak naga xaraki baam gëneem la boole aki jaam gaali wurus la la bolon yaa tonu yaa bari nga ñaay yaa mate ñee maana la saay ma moodu sow def na la waay yaa kilimaani waaya man Ababakar masul di tooñ way juree kenn ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yàlla borom ba leen bindoon Ababakar masul di tooñ way juree kenn ci musula tooñ doom jum jurit musula tooñ yàlla borom ba leen bindoon yónneen ba doonoon àndandoom am na juróom fukk ci maam yu musula tooñ yàlla te duñ mooy borom ba bindoon yéenay si baat kay kubar kem ba du huuteeg na du far yaay bàyyi xiig yaa ko jar yaa dàq tey mbuurin fi man mbay toog mu baa woo keneen yaa ma sëral muhaajiriin lan saari ki man di doon tey soxla naa ku dem yaman halli yu buur xafaar naa su doon dellu ñaar maay xus ca noon yay lare ñaar mu nay ne naa doo doon yaman ya ibnu hami ya rasul man fu ma xaaci noon ñu tuul may gaynde may sal jubba tool ndax man nga taamu ci yaman mu naa ko man yahrisuni wa anisi wa jaarani abul husayni alhasani maali siwaaka laa yaman mu naa ko man yahrisuni wa anisi wa jaarani abul husayni alhasani maali si waa kalaa yaman xale yu woo keneen yaa ma sëral lan saari ci man di doon tey soxla naa ku dem yaman maasa jóg ibnu jabal mu yaa ibnu jabal xamal dem yow ñeel yaa ilimaani waa yaman anta yaa maas jibriilu moo ma maas na dem yaman doon seen liwaas mooy li maañu waa yaman yonen ba woo foofa bilaal nee ko tàllal ma meteel mu ñëw mu daldi koy meteel te naa ko waajal dem yaman maas daldi jóg jàpp gëliim fabrax la teg ñu di ko yiim yonen ba naa ko kaaya doom maas tey ma dénk law yaman yonen ba jàpp ceeb loxoom naa tey ma dénk loolu woom dénkub xarit bu dib jegeem ci sun borom ak waayaman ittaqillaaha yaa maas wasul lisaanaka maas wallaahu rabbuka aas hunaa wa fi ardi yaman ittaqillaaha yaa maas wasul lisaanaka maas wallaahu rabbuka aas hunaa wa fi ardi yaman mas naa ko dolli ma leneen te bul ma dencalit leneen loo xam ne danga ko wax keneen te fekk boo maa nga yaman munoo maas yoman isaab ñey gën a metti ay xaab te seen lami ya ko góob ñooy waxi neen wax ko yaman bul rek maas te mbokk xiif te bul desal it ne ko kiif te fekk say dëkkaale xiif xaraam na wax ko waa yaman boole katee maas ba bul denc bul wetti bu tuur gannaaw dangaa lekk ba suur wutal ku xif fa waa yaman ku wóbbu nit di ko leel bur yàlla fab la di leel ca ñami aljana xamal lii yóbbuloo ko fa yaman te boo mayee jullit mu naan bur yàlla nandal la ji naan min maa i kawsara di naan yey teeru Mustafa yaman ku sanga julit malaan bur yàlla sang lay malaan hariiri jannati nga daan ca teeru be wa kow yaman ku suturaal awray julit bur yàlla def laab xarit sa yawra ji su wisiit yowmal xiyaab wa kow yaman boo wuññilee julit ayib bur yàlla wuññi say ayib jébbal la gaayu lay tey mbër ma wax ko waa yaman te boo xasee bokkum julit mbaate nga ngaññe ab julit def na la jëng naari gaat te jën la lii jaru ko te boo xasee bokkum julit mbaate nga ngañ ab julit def na la jëng naari gaat te jën la lii jaru ko woon ni dekki neeg malaaka teew lu buur bi ndoon lépp di teew malaaka fab la ñépp géew di weer jëf ya nga jëfoon yow bul nelaw ba naa xureet ngir ruugalee mu ne xoreet mboolem njaboot ga di seet te duñ ca man la yaman xamoo maas naari nga jëm xamul aljana nga jëm bul reeba kekku yow jahim fee jàll goo ko bul xaram bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sang càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bu lekk maas ñam wu lewul bul naan maas naan gu lewul bul sang càngaay lu lewul lii yóbbuloo ko fa yaman bur yàlla lam luy jëkka laaj du ndab bi déef lay jëkka laaj te su lewee dootu la laaj sowe nga wax ko waaye man bu lewulee doo mën a wéy say àndandoo duñ mën a wéy keroo nga gis ku jooy ne wéy balab keroo nga ñam yawoon na nga yërëm lu sa boroom te deel yërëm kat say moroom ni réew mën a maasa jaroom ak yërmandeem raw naw yaman xamal maas yow marxiyaam jaan dana génni far ni baam subaan la tudd wenn ngaam wa daj na duniyaak ñam logon keroog nu buur bi ndee ba tey jaan jaa banku naari fay xiif na ba ñas ngir xaru way tooya yu dooleel repp nañ day wax ni nit te dana for way tooñ ak ñeleen di far wey tabi naari bul di far way tooñ ci atte fa yaman maas ngay lekka laal te ga dara bul ko di laal lum tuuti tuuti bul ca laal kon da raw fa waaye man ndegam da ngay jëndey dinaar téeméeri junni ci dinaar ci ndox mu sell nib dinaar aljuma dellaa fa yaman ne manaas bul koy ragal ndem tooñuloo jarul ragal ngir dem na am caay ñiil muñal te wax ko waa yaman bul fàtte maas yow sa boroom foo man di nekk moo la bul sàgganeeti say moroom ngir ñooy sa seere fa yaman hoone maas na ngay xalaat ne gat siraat bu mën a faat loote nang koy mën a waat demal jaat fa yaman foo dëkk deel sa xoo kër muy hàll baat muy fësa kër barab ya ñooy sa seere far yow mal xiyaab wax ko yaman bul fekk tooñ nga di ko far bul fa begit def ko ni nar kii limaan bul ko di cor bul fa tii fa waaye man na ngay dëkkaale ki faqiir miskin ya maas bu leen leer te soo defee fekki leer foo man di jëm fa waaye man xam nga maas kat alquran xamal ko képp kuy royaan faqiir miskin ya andi leen bokki jataay fa waaye man bul sàggan ak dégin maas bul topp neen yakan maas képp ku dee réccu maas te fekk wiy na fa yaman munaa maas yow taxawal yaatu latul kañaani xol jàppab loxoob naa ko muñal tey topp tooy jarak yaman jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa maas ba nuy dajee ci maas yowmal xiyaam laatiw yaman jàppal ma dénk bi maas ngir man ragal naa ne maas ba nuy dajeeti yow maas yowmal xiyaam laatiw yaman maas ne ko yaa rasuulullah ngëp naa sa dénk bi walla may sàkku ndimbal ca ilaa ak dénk bi fa waa yaman maas naa ko yaa rasuulullah ngëp naa sa dénk bi walla may sakku ndimbal ca ilaa ak dénk bii fa waaye man yónneem ba loxoom ñaanal ko taf li ci loxoom te naa maas waaxule doom tey dénk naa la waaye man dénku maas ba fii yem xatteem tey laay bëgg a jëm xaatuk rasuul gaa ku yëgam te boo maasa nga yeman keroog ba maas yeggee yeman yé gàngu neem ga fa yaman ba sant yàlla fukki yoon ak yaari yoon fa waa yaman julli yonen ba bu baax waar leen ba xol yene firaax yaman ñana jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman julli yonen ba bu baax waar leen ba xol yene firaax yaman ñana jiiwaaya baax sa wàccuwaay moo di yaman dana la ngëb di la teral yaag sa njaboot di mu jooy fa jooyu réy ba dal ñu di ko laaj ñu waaya man fa man yubdiika yaa maas xaala law moo laysaas amara saydi maas habiboo indal yaman ñu laaj ko la la digal mu tontu leen lam ko digal nemmi ku way ragg te saggane miskin fa yaman maa sax fa ñoom di leen digal amat mu lenn mankiwul muy fukki weer ak yaar xamal lii fa waa yaman xam jëmmi bés maas di nelaw lisaanual tiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonent ba xam jëmmi bés maas di nelaw lisaanual tiim ko na yow yeewul maas da ngay nelaw mbiram na yaa ngi fi yaman yonent baañ ci sukuraat yow ngay nelaw ba naa kuréet mboolem saa ba yépp diit yow ngay nelaw fii fi yaman dellu ko baa mu ne maas yonent ba faatu na maas yëgal na madiina maas kenn nelawul ngi fi yaman dellu ko baa mooti fi saa naa ko yëgal ne sile saa suuf ci ma yonen yile saa mu tidd lox fa waa yaman keroog la maas génn yaman tabbi ca biir yaman mboolem bi diw yom téem da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman keroog la maas génn yaman tabbi ca biir yaman mboolem bi diw yom téem da doon gis ñuy wëndeelu fa yaman mboolem garab gën yënguwul mboolem ngelaw leen nu jógul mboolem asamaan si niral ñu lëg bu fa waaye man mun naa ji rek bu di jooy di jooy ba bënne kooj mu xëy di ñaan yàlla di laaj naa ma gént fi yaman ndem luñ dëggal la di lu na del si guddi gii ma jëm bu na saytaane rajiim soppil ma mbir mi fi yaman yendoo keroog ba cëg bu tiis mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu ma mu gisoon yendoo keroog ba cëg bu mboolem ba cëg ba bépp niis mboolem yaram ba bépp diis ngir mbir mu tiis ma mu gisoon ca mbir ma del siaat naa ko lii ngay xalaat lu am la nang ko mën waat demal Madina yaa ku man ca ngoon nga si aat naa ko maas lii ngay xalaat lu xam la nang ko mën a waat demal Madina yaa ku man mas li te na keroog yonnen ba faatu na keroog jooya maas jooyan keroog mu seefu ko jooy fa yaman jooy ba garab ya bokk jooy ginde yaman ya ser jooy malaaka yër jooy ngir jooy maas moon yaman ma moon yaman jabeer banaa yaa zaydi yaa maaliki faastadi yaa wayli wayli ya sadi layli aa fi yaman mu jooy fa jooy yu yàgg naa ko muhammadu rasul ma doon sangab ku doon rasul na tey maa fi yaman mu xëy di julli ji di jooy taxaw di jooy sëgg di jooy sigi di di jooy taaya bësal mal fa yaman faraala yaa muhammada waabal qaasim sayida wa yaahima ral masjida inna lillahi la waxoon inna ilayhi raajiwoon dootuñ giseeti lam waxoon